suñu teewaay tey fii je pense suñu camarade wax na ko du lenn lu dul répondre ci appel bi nga xam le président Macky Sall moom moo ko wootee aussi ñu ki ko ñi leen ko dicté mooy acteurs sanitaires parce que vraiment gis nañu taxawaay bi nga xam ni amoon depuis nga xamante quand même euh, mbas mi mi ngi fii ci suñu réew ñu gis mesures yi nga xam ne jëloon mais contexte bu nekk ak mesure ba jël euh, demon na jamono boo xamante ni dafa defoon couvre-feu état d'urgence bini ñu ba xam crise sanitaire bi mi ngi dem bay dépasser naralal nara laal crise économique mu nak n'a naa def ay mesures d'assouplissement mesures d'assouplissement yi tekkiwul nii dañoo war a toog bàyyeeku mais dañoo constaté ni ñeneen nit ñi mesures d'assouplissement yi mooy bàyyeeku leen def leen lu leen bañ leen masque donc raison pour laquelle euh, mu am engagement total boo xamante ni sénégalais dañu ko jël te fii ci Thiès bu famille jëloon nañ ko fi ay temps donc ñëw nañ fi and ak euh, quand même le ministre euh, de la femme mu ñëw fi dajale femme ñu joxe sen ay masques tey jii ñu gis ndaw yi tamit tok nañ boole sen ay dem ak sen ay dakar dugg fi ci sen nga xamni sen ay mbokk lañ jox leen ay masque ñu takk ko mais aussi tamit sensibiliser leen pour ñu gëna xamné fièvre bi mi ngi fi jugu fi au contraire dafa gën a bari donc ñu gën ko mëna moytu bu baaxa baax mo nekk tay suñu téway fi ci euh, Thiès. dañu ñëwoon fi tay ci daral bi ci période tabaski bi ñu sentir ne mbas mi yokku na ci ci Thiès cas communautaire yi aussi yokku na ci Thiès ville ñu ne woon en tant que jeune période bii jege na tabaski bi population bi dañuy bàyyeeku ñu ci bëri dañuy nekk ci wutum xar ñi nekk ci yeneen ñu ne nañu ñëw si daral bi nga xamante ni day concentrer nit ñi ñiy jaay ak ñiy jënd dañu remarqué ñu ci bëri du ñuy takk mas te Février, bi lenn rek mo la ci mëna muccël moy ngay tak masque pour protéger wu ñu né nañu ñëw mobiliser wu woo jeune yépp Thiès ñu ñëw fi yor ay masque pour jox leen ko bon lo de masque, yi ñu joxé mu ngi tollu ci 1200 masques 1200 masques la ñu distribué tey fii ci ci daral bi bo xolé population wu Thiès bi ñëpp ñu ngi ñëw fi di jënd si ay xar ñun ñu japp né il faut ñu protéger population bi parce que tey jii nii Thiès jour yi mujj cas communautaire daf fi bari trop trop te population yi dañuy ñëw di jënd ci xar ñiy jaay xar yi aussi sentir na ni ñu bëri duñu takk ay masques ñoo loolu moo tax ñu jël suñu choix porté ko ci daral bi fii ci champ de course ñu ne nañ ñëw jox jaaykat yi ay masques mais aussi population bi nga xamante ni dañu ñëw pour jënd ci xar. ñu jox leen ay masques pour ñu mën a protéger wu ci feebar bi loolu moo waraloon tey ñu ne nañu choisir daral bi boo xoolee démb am na fu ñu demoon ci côté garage bi parce que population yi ñu bëri dañuy déplacé wu mais ñu ne kon dem nañ ci garage bi dañuy déplacé waat aussi ñëw ci ci daral bi loolu moo waral tey suñu choix fii. démb dama fi jaar mais j'ai remarqué que ne population bi fi nekk 50 pour cent wala 60 pour cent bi takkuñu masque ñu ne kon nañu déplacé wu ñëw fii jox leen ay masques te. Linga nga wax c'est vrai parce que nit ñi xaw nañu relâché wu mais je pense que bu ñu dégloo président de la république mu génn communiqué ci ne fii ba ñaari weer ba ñetti weer dañuy continuer di takk masque yi ñun en tant que ndawu Thiès nekk koo xamante ni dañuy yëngu ci wàllum politique di jàppale président Macky Sall dañuy ñëw ci ay directives am dañuy déplacé wu ñëw fi nga xamante ni fi la politiquer sensibiliser population bi mais ñëw aussi jox jox leen ay masques pour que ñu mën a protéger wu si feebar bi duñu terminer aussi te te remercier nous, parce que ku ne sentir na ne Thiès bambas mi commencé muy la ville de Thiès euh, damay tudd la maire mu yobale ñep parce que am taxaway bu ama am solo bu mu ci def ci côté yëpp ci distribution de masques ci joxe ay ay savon ak ay gel antiseptique mais aussi taxawu daara yi di len jox ay ñam ñuy ñuy mais aussi ba may dem ci département bi aussi remercier le maire de la ville de Tassette mom aussi depuis mbas mi bu mu commencé ba légui amna ci engagement total mu ngi ciy nous lu ñun aussi en tant que ay frères mu ngi tout le temps di ñu conseiller naan ñu na ngeen def li na ngeen sensibiliser dem leen sensibiliser population bi surtout dans les 15 communes du département je pense que lolu bu ko dé def mom taxawayam la ak cër bu mu jox président Macky Sall ak lepp lo xamanteni aussi da koy def danaan sant leen Macky Sall mais aussi jappale leen ko